xamante moom moo di recteur bi ak ki nga xamante moom moo di euh, ñi waroon organiser ndaje boobu léegi laaj bi nag moom mooy est-ce que tey war nañu jël université rek euh, jëm ko di ko politiser wala sax di fa def activité yoo xamante ni euh, activité politique la notamment mu nekk bërëb boo xamante ni bërëbu jàngukaay la bërëbu saxukaay xam-xam ndax gis nañu coow bi fi indi woon ci fa ay bés yi ñu génn rek gannaaw bi nga xamante ni kii di Ousmane Sonko mu ngi doon dalal foofu léegi kii di Mélenchon Euh, ni ki tey également ab euh, ndaje ñu waroon ko fa defal def même bu fekkente ne ay étudiants ñenn ci ay étudiants la mais euh, liñ leen xamee dañu am coloration politique est-ce que tey war nañu utiliser ay activités yoo xamante ci dafay rax politique di ko def foofu foofulee ci bërëb bi nga xamante ni saxukaayu xam-xam la di université Cheikh Anta bu Dakar. leneen li également bokk na ci yenn ci décision ci nomination xam ne ni président de la république jël na ko ni kii démb mel na am na ko nekk ci buumu jokkoo bi salaamaaleykum waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw sama sëriñ man man la sëriñ Mor Niang bu Mbacke Bari maa ngi bu baax sëñ Mor Niang waaw maa ngi lay nuyu du nuyu sa technicien bi nga àndal di leen ñaanal jàmm di ñaan sama kàddu fekk ñëpp si jàmm jërëjëf di di ñaan yàlla na yàlla dolli jàmm ci àdduna bi yëpp yàlla def jàmm ci Sénégal. amiin amiin. defe naa ne yaa ngi njëkkee problème mu Baara njaay bi ak euh, monsieur Xuane. Mhm. waaw xam naa di masawu baay Baara rek. Mhm. Baye Baara moom euh, am nañ ci moom yaakaar defe naa ne moom jàng na alxuraan. Mhm. loolu wax naa ko ba tey jàng na alxuraan. politique kenn terew ko mais dañu bañ li ñu tubaab yi tuddee politique politicienne mais diine terewul politique. mais politique politicienne lañ tere defe naa ne tuumaal nit tamit ni mu toll soo amul ay argument tamit l'islam da koy dax ah man de am naa si moom yaakaar parce que boobu ba léegi maa ngi xool ay démarches am néew ma li ñuy wax duñ ko weddi de mais buñ demee ba ca kanam danañ ko gis danañ ko gis ndax tuuma dafa metti ñoom xam ne lan mooy tuuma islam wane ne tuuma ah ab jullit dëgg du ko def moromu jullitam boo ko ak nag joxe information li nga joxe bu dee dëgg la kooku terewuñ la nga jox ko ma da bañ bañ ko làq pour yor alal réew mi nga làq ko loolu la ñuy tere loolu la islam da ko tere moom maanaam nga jël alal réew mi ma làq la fexe ba layal la ba xaalis bi lew loolu ab jullit du ko def Baara Ndiaye def naa loolu du ko def léegi nañu xaar moom nee na am na ay preuve moo ko wax ci télévision yëpp ñëpp dëkk nañu xaar ba xam yan preuve lay indi parce euh, que sama euh, sama sëriñ euh, allo. waaw ah, maa lay dégg bu baax maa lay dégg bu baax. est-ce que vous m'entendez. Mhm. voilà dama ne moom def naa ne moom li mu li li ko yàlla defal moom jàng naa alxuraan li des mooy soxna si mu tuumaal ni dégg naa ko fan yee paase léegi bu mat weer booba léegi mu ngi door a indi plante bi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen Baara Ndiaye moom ñëw na moom ñoo ngi koy déglu def naa dana indi ay preuve parce que tuuma yi ñu tegoon Ousmane Sonko ñoom ñëpp ko doon dayal ba ci man mi wax ak ni kon moom xam ne lan mooy tuuma bu fekkente ne lii nga juñaal dara amu ci dañ koy bàyyi mu ñibbi bu fekke ne li nga tuumaal am na nag moom vraiment dafa war a rendre service parce que milliards yi ñu leen tuumaal nii moomuñu ko milliards askan wi na loolu ministre yi ànd ak Macky Sall yëpp dañ leen woo amul sans exception ñoom ñi ñëpp seen dossier procureur bi pare na danañ leen woo ba nga xam ne xaalis bi nga fekkente ne ne dañ ne ñoom ñoo ko jël ñu confirmer ko président tribunal bi confirmer ko euh, parce que léegi euh, bul fàttali OFNAC dañ ko jox pouvoir boo xam ne léegi day yóbbu mandat de dépôt bu njëkk amu ko woon OFNAC bu njëkk ay loxo kese la amoon dana xaar rek bu liggéeyee pare jox ministre bi ministre bi jël yóbbu ca président moo taxoon nga dégg Macky Sall naan maa ci teg sama conc léegi nag jox nañ leen ay pouvoir pouvoir mooy am na nit droit def la mandat de dépôt boo expliqué lu leer dañuy def mandat yóbbu la ñu àtte la moom li ko tuumaal nii tey bu fekkee dana dëgg la Baara Ndiaye moo na ci dëgg moom Thérèse Faye Diouf dañ koy indil añ waaw Baara Ndiaye tamit li wax bu fekkee dana amul moom xam na li koy xaar parce que nag lii mooy justice mooy awul boo faree ci man boo farul ci man boo faree ci man tooñ tamit la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon te jàkk ja woo Fatima woo doomam bi ku jigéen gi ne ko kaay ne ko kaay ba mu ñëw mu ne ko deet lii kat sariya kat jibril ñëw ne léegi nee na képp koo xam ne sàccati nga muy doomu ye man sama doom yii ah, dañ lay atte comme ni ñuy atte ñëpp même de d'égalité la dañuy dagg sa loxo bi tey bu subaa boo ko defee dagg sa beneen tànk bale boo ko defee def ñu dakaat beneen loxo bale boo ko doyal def ñu dagaat beneen tànk bële sa ñaari loxo sa ñaari tànk ba daggee nag nga continuer di ko def ba nëga ni nee nag bu ñu la delloo jàppaat beneen yoon ci ci groupement boobu dañu da dañ lay rey beneen nga noppal nit ñi hmm. kon defe naa ne Baara Ndiaye jàng na ko Thérèse tamit gis naa ne moom tamit jigéen la mais mu ngi noonu léegi nañ leen bàyyi ñoom beneen bi ci des euh, pour monsieur Xuan xam nga Xuan yow sama sëriñ man dama koy féliciter parce que Xuan xeex bii Sénégal yi doon xeex pour ñu libérer Sénégalais yi ñu am seen liberté d'expression Juan da cee liggéey liggéey bu rëy a rëy rëy loolu bëgg naa ni ñu xam ko liggéey bu rëy a rëy la ci Juan mi liggéey jaral na ko ba mu jaar ci biir gaal yi looco yi ba dugg ci Sénégal yow fi la fekk kon moom c'est un français mais c'est un Sénégal vrai patriote yi Sénégal di patriote ki xuwaan euh, mooy numéro un bi parce que mënoon naa toog France rek def na fa moromam ya def gis ni ñuy jaayee doole africain yi di leen jaay doole mu ne xaaral ma abstenir sama yoon nekku si mais moom bakkanam xajoon na ci fii dañ ko jël tungoom ko tënk ko comme ni ñuy tënk ganaar yóbbu ko ba ca avion ba ne ko acca bu mu laal suuf du fi fanaan mais dafa assumer ay responsabilités ba Ousmane Sonko génn ci kaso mu dem sur le plan international ne leen nekk quatre-vingt et quelques personnes yoo xam ne faatu nañ ci. vidéo yaa ngi ni ñii dañ leen di procédure yóbbu leen CPI kon moom mi ngi liggéey liggéey boo xam ne sénégalais war nañ ko apprécier war nañ ko apprécier du Sén du sénégalais de mais dafa gis un injustice bi am mu taxaw xeex ñun ñuy woote fii nii man injustice rek laay xeex na bu ma neexoon man maa abstenir du terrain bi mais man fu ñuy jaayee nit doole amul ci carte bi amul dara fu ñu koy jaayee danaa danaa jóg génn ci man. génn taxaw défendre leen parce que jaay doole dafa war a xew yi Youssou Ndour mi nga xam ne waaye rek ay métier surtout maam Marisène bi dafa wax ne bàyyi leen jaay doole jaay doole baaxul mais xuwaan mii nag waaye woowu da koo dégg France rek ne pourquoi Sénégal yi seetaan ñu ñu jaay doole Ousmane Sonko ah te français la mënoon naa abstenir ci ne ma samay new ci wala mu dem ci gouvernement bi nekk seen avocat di lekk per diem yi comme ni gars yi ni waaye képp koy défendre ku ñu tooñ képp kuy défendre ku ñu tooñ yàlla nee na maag yow waaye képp koo xam ne dangaa def benn lobby di défendre koo xam ne alal li réew mi moo ko lekk nga défendre ko fexe ba alal ji mucc ñu jox la ci sa wàll nga lekk ko lekk nga deret sénégalais bref africain nga lekk nga deret africain parce que yow dangaa défendre injustice défendre koo xam ne dafa sàcc alal réew mi nga wut ay avocat di kooku tamit jël ay matukaay naan ko danga ma jox temps nga may fay ma défendre la mu défendre la ba nga gagné projet bi ngay lekk xaalis bi ak sa njaboot boo demee yow man xeyam da nga fa bëgg a jógee mu tëla te yow man xeyam amul wéccat de amul delloo xaalis maa ngi lay gërëm bu baax a baax pour ma bàyyi téléspectateur yi ñu ak jërëjëf jërëjëf di leen ñaanal jàmm que yéen bu ngeen fay ñëw mu baax euh, réew mi dana suuf la jëm parce que yenn rajo yëpp dañ leen a ngalaab ngalaab nañ yenn rajo yi ngalaab télévision yi fi nekkoon dem ba ci seen directeur yi ngalaab gis directeur yi léegi bu ñu xëyee suba ñoo sonal nit nit ñi dañoo war a yaru nit ñi dañoo war a def nangam nit ñi yaruwul yow nit ñi xeex ay juste nga naan nit ñi dañoo war a yaru jërëgën jëf jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom euh, sëñ Mor ñu ngi doon woote foofu la ci diwaan bu euh, mbakke Bari yu ni mel ñu koy jaajëfal bu baax a baax di xaarandi keneen ci bu jokko bi